salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di siyaare bu baax Abdou Khadir Kebe tey nag dama ñëw tey ji bëgg a waxtaan ak yéen tuuti ci sama menn mbokk moo xam ne dafay ñëw di sama xarit di sama wëllëre di sañ sàmba saar sëñ Samba Sarr nag taalibu sëñ Cheikh Say la di jëwrinam fii ci Impôts Domaines doon nag euh, ab euh, ex ex euh, inspecteur des impôts et domaines bu nekk en retrait ñëwoon fi nag di kilifa moom ci jëm boppam itam yàlla dogal na ci loxoom la Sonko Ousmane sonk mii nga xam ne yàlla def na ko tey muy premier ministre di kilifa gu mag ci réew mi ñu xam ko ci politique euh, yor Pastef ci moom la defee stage ca Pikine ci impôt impôt domaine ba nekk ci Pikine tey nag dañuy waxtaan mu wax ma lu am njëriñ ma ne ko lii nag dafa war a doon loxo dañ koy partagé ñëpp dégg ko pour mu dolli confiance bi nit ñi am ci ki leen di diriger yoo xam ban genre nit la ndax lii bi ma koy wax. waxewu ko ci politique waxewu ko ci dara dafa dañuy waxtaan ba egg ci mu wax ma loo xam ne man wax dëgg yàlla impressionné na ma lool kon sëñ sàmm maa ngi lay nuyu bu baax a baax. sëñ Jili yow sama xarit di sama sëriñ di sama kóllëre ñu yàgg lool yow mënuma laa bañal dara dañoo toog nag bu ab chapitre ci Ousmane sonk yëpp goo ko yëpp fonk goo ko fonk ak bëgg goo ko bëgg. ma jox la ci benn seede lii moom man moom ak yàlla ak kama yónni woon ànd ànd ko ànd leen mu dem woon la terrain bi dañ koo mayeenu bàyyi ca sébi xotaan ca booru école sébi ponti bu njëkk ba ñu def commission ñu may ko trente mille mètres carrés mooy trois hectares directeur woo ma ne bindal ko bàyyam mu ñëw ak carte d'identité yëpp la bind bàyyi ba ba mu jeex ñu war a nekk di lire mu ne ma doyen teg ma booleeg géomètre ma dem xool tere bi ma ne ko ko benn problème boole ko ak benn géomètre ñu dem ba ca foofa man xaw xam nga géomètre ay xam ba mu eggee fekk na fa benn màggat bu ànd ko sëtam mu laaj ko kooku ne ko fii day ba bàyyi kii ma kii nga fekk fii tool ba muy tool nii laa tàmbalee bay tool bii mu ne ko mu tàmbalee mu ko fii la tàmbalee feefee xaw ma daal lu ñu fa bay hmm. hmm. ah, gis nga tey naa ko ma ko ñun hmm. mu mën naa ko xotti man ma tiit <laughs> boobu kat damaa jàpp ne xanaa da koo xeeb <laughs> ah may ko am waaw ma ko xotti mu ne ko jël ma ne teg xamatuma lu may wax. Hmm. ndax man dañ maa jox ndigal rek ne ma jox. Hmm. ma ne teg ma ne ma doyen ñii dañ ma bëgg a booleeg yàlla. Hmm. du ma ko fàtte mukk. ñii dañ ma bëgg a yàlla ma ne ko ndax lan. ne mais moom liñ ma jox. maa ngi fa fekk genn màggat boo xam ne ma ko sëtam. mu ne ma kii ba moo ko ba papaam di toll nii laay bay fii ba léegi. ñu bëgg nangu kooku ci di ma ko jox. man soxlawuma loolu. ma ne ko ah. ma ne ma ma xotti ma ne ko yaa ko moom de. Hmm. ma xotti ma de ci sama poubelle. <laughs> nii la defee fi mu ne. nii la defee. allahu akbar xam nga man nag politique gu ma. Hmm. man soxla dara ci politique. Hmm. wutuma dara wutuma poste wutuma dara. mais sumay may wax yàlla doo nga tax may wax. dëgg la dëgg la. lii may wax. wax naa ko Abass Fall. ñëw na ba sama bureau. wax ko ko. ustaas boobu ñu jàppoon. nettali naa ko. moom kooku sax war na ko ci rajo. ah loolu mosuma ko dégg nag. géomètre ba ma àndaloon ba moom. Hmm. tey jii bu ma neexoon moo ko wooyee nii mu confirmer la ko. Hmm. Hmm. loolu day wane nag moom. mu dem dëgg yàlla. directeur. ba mu génnee ba sori tuuti rek directeur moom. dama ànd sa booy bi signé na. ma ne ko kii daf ñuy font ma ne ko wax tey ngaa bàyyi ba bis rek waxal. kat du ma la wax. bàyyil ba mu ñëw dina la wax. fële lépp dafa tàbbi géej kenn waxatul ca terrain ba. ah loolu day wax dëgg yàlla moom day loo xam ne. Hmm. amul keem man mii waaw waaw yow loolu kay loolu daa doy sëkk man xam nga man xam nga ñun ñi ñëpp dañuy dañuy dégg euh, ñuy nettali moom am na sax buñ ko mës a dégg mu waxal boo xam ne man damaa jub te dama jub moom dama ko mës a dégg fenn moo tax maanaam maanaam maanaam wax ci jaaxaloon ma waaye nii lii nag day wund dëgg nag ak jub te ñun Sénégal nag waaw te te ñun nag senegal son problème ak jub la ndax réew mi am na lépp waaye ñu dee fi nekk. di jël réew mi di ko jariñoo kon nag na sunum xel dal ki mel nii moom ku ne sañ na cee dalum xelam loolu daal moom waaw loolu daal lañ bëggoon wax dégg naa kii def ah waaw waaw <laughs> leer na nag jërëjëf jërë jëf